cadre, les promis. kon gars yi tout d'accord loolu benn candidat lañu am non loolu laa bëggoon wax dama wax ne benn candidat lañu am pour muy Darou Sow léegi képp koo xam ne d'accord nga si pour Darou Sow da ngay solo Thank you.

ñi nga xam ne seen bopp comité directeur ñoo am droit voté wala assemblée day am droit voté. loolu comité directeur ñi bindu dem naa non non ah. ñi bindu da leen di soxla di toog ñi bindu da leen di. waaw. c'est comme ni nga xam ne ñaata la wax. am na koo xam ne dafa compte. léegi ñun ñu gis ko. est-ce que am na ku compte. yow un contre un bu defal contre un. abstention koo xam ne euh, am na am na abstention un. donc jàpp nañ ne euh, pour pour euh, l'élection pour la candidature de Daouda am nañ 45 pour benn ak benn. kon donc euh, daaw jàpp nañ ne donc bu ñu xoolee nombre bi daaw est élu président de l'ASC Guinaw Rail bi donc ñu def ni premier vice-président de l'OAS,